maa ngi tudd Anna Ndiaye euh, di actrice de développement euh, di yëngatu ci sunu produit locaux yi. alors ñu bëri nga wax ñu sa lëkkaloo ak le cadre de concertation mais également ak réseau euh, de la sama lëkkaloo ak cadre de concertation pour le développement de Thiès dafa fekk ni may nekk doomu Thiès bokk Thiès kon cadre bi. bu wootee dañu ñëw war a jàppale euh, le coordinateur nommé Habib Kane defe naa lépp lu muy yëngatu dañu ñu nekk doomu cees dañ ci war a jàpp. donc euh, day wane ni rek da nga wuy si ginnaaw affaire bi nga xam ne moom coordinateur lancé ne ko ak les acteurs pour ñëpp ñoo xam ne rek ay doomu Thiès lañ ku nekk fa nga yëngu rek nga ñëw mën a jàppale euh, waa Thiès ñu mën a génn ci ndóol bi surtout jigéen ñi. loolu la. ndax euh, waxoon naa ko bi ñu nga xamante ni ñoo ngi def euh, cérémonie d'ouverture ba ma ni ko lii nga jugte képp koo xamante ni acteur de développement nga ak képp ku bëgg Thiès daf la war a tendre la main ma ni que ñun de en tant que femme de développement euh, dinañ la jàppale ci liggéey bi nga xamante ni moom nga sóob te liggéey bi itam yàlla na la ci yàlla gunge ndax euh, jóg nga ni dangay jàppale jigéen te ñun ñu nekk jigéen di yëngatu kooku defe naa dañuy bàyyi lépp luñ doon def euh, jàppale ko ndax euh, jigéen ñi actuellement ni ñoo yor kër yi kon ku jóg bëgg leen jàppale nee naa ko su fekkoon ni woon am na fukki Habib yu mel ni yow defe naa jigéenu Thiès dootuñu jooyati ndax lii lañ doon ñaan ku leen jàppale ndax dañoo sonn ci banque yi Euh, koo xamante ne nag ñëw na ni la dama lay subventionné jàppale la gunge la euh, formé la nga dem ba am sa autonomie bopp kooku defe naa euh, ku jër a sant la ku jër a gërëm la ci li nga xamante ni yoon boobu la jëm. alors ci formation bi rek ñu fàttali fàttali ñaata tey ñaata groupement ñoo ñëw adhéré en même temps formation bi ci yan produit ngeen koo jëmale. Euh, formation bi euh, ñu ngi amoon euh, fukki groupement parce que gàcce ngaa laa ma nag monsieur Kane defe naa en espace de deux semaines il a pu financer vingt quatre groupement dix groupements yi nga xamante ni ñoo jiitu woon ñoom ñu ngi doon def siro local ñu gis ko ni muy jingeer bi ak bisaab bi ak daqaar bi lañ doon transformé nga xamante ni ñun ñoo koy ji fii sunu baykat yi ñoo koy ji jox ñu ko ñu transformé ko am na itam euh, confiture génne nañ si itam jus mu nekk euh, fukki groupement yoo xamante ni defe naa après ñoom li ñu mébat mooy euh, dañuy def démultiplication bi au sein de leur groupe maanaam le matériel et la ñoom après dañ leen di gunge ci liggéey bi ndax euh, fukki groupement yooyu tey soo ko seetee ni ndimbal dëgg la ci euh, ordinateur bi dugal da ngay gis fukki groupement ñu laaj la ku nekk mille francs ba nga demee bi nga produire ba pare yaa ngi yóbbu valeur u mille francs kon kooku c'est un surplus am nga xam-xam am nga yokkute ba pare heure booy def sa démultiplication euh, en tant que formatrice dama leen di gunge duma leen bàyyi ku war a produire damay dem assisté la ndax ñu dem ba maîtriser liggéey bi. maanaam day am suivi quoi. day am suivi parce que liggéey boo gis bu amul suivi du baax euh, jigéen ñi il faut ñu encadrer leen jàppale leen ndax ñoom ñooy sunu yaay ñooy sunuy sœur ñooy suñu mag ñooy suñu ay rakk. kon daal jàpp bu soobee yàlla incha allah. maa ngi ci cadre de concertation pour le développement de Thiès loolu rek moo ñu ñor euh, te ñu ngi koy def ci commune bi di ko def ba ci département bi comme je l'avais dit à la cérémonie d'ouverture ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax euh, di wax euh, coordinateur bi yàlla na ko yàlla yokk dëgëral itam ñi nga xamante ni ñoo koy wër ñoo ko encadré ñoo ko encadré parce que feccum liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ma Habib ñi ko wër dañ koo jàppale en l'occurrence la présidente Aïcha Aw mi nga xamante ni moom tamit que je remercie d'avance gis naa ni mu encadré jigéen ñi xam nga kooku moom tamit soo ko jàppalee euh, defe naa doo ko réccu jërëjëf man la Aïcha Aw présidente des groupements pour le réseau de le réseau de développement pour la région de Thiès alors bu yàggul dara amoon ngeen euh, li ngeen collecté ci biir groupement de femmes yu bokk ci réseau d'appui pour développement de la région de Thiès. am lu leen seen euh, coordonnateur di Habib Kane appuyé financièrement. pour ngeen war a ay formation ci wàllu transformation des produits locaux. mais également gën a amaat nga xam ne rek mooy autonomisation de la femme pour ndóol. mën a génn seen formation bu njëkk am na lu produire te les nga xam ne nous présenté ko ñu bëgg rek présenté nga delluwaat ci liggéey boobu. waaw dañuy parce que waxoon nañ ne dañoo am lu ñu collecté woon Nous avons am lu ñu collecté woon teg ko ci table bi suñu coordinateur des ndimbalu yàlla mu amoon lu mu ñu jàppale ñu financé ci 10 groupement 10 groupement yooyu dugg nañ def formation local ah ba. yàlla def na ci jàmm ñu génnee trois produits génn nañu euh, Dakar génne nañu ci njeer génne nañu bisaab mu nekk rek lu tolloog euh, fukki groupement ci euh, groupement yi 53 groupement la ñu ci biir kii bi. Mhm. est que tey liggéey bi nga xamante ne sumb ngeen ko day wéy ci yeneen groupement yi. waaw liggéey bi ñu sumb ba pare day wéy ci groupement ci 53 groupement yëpp. parce que dañoo commencé ci 10 groupement soo seetloo tey 14 groupement la ñu parce que premier financement bi dañu jox 10 groupement tey euh liñu yoron ak euh, li coordinateur jappelé ñu financé 14 groupements donc dañuy dem ba wër 53 groupements yépp alors bu léegi rek euh, cadre objectif am mooy jigéen ñi mëna soxaliku ñu mëna a gis seen bopp ci walu koom-koom ci biir Thiès li ngeen door tay ci groupement yi ak liggéey bi nga xamante ne day nécessité ay moyens yi ni mel yéen lan ngeen ci àddu par rapport ak moyens yi ak seen jiit. waaw dun wax dëgg yàlla moy tamit lolu da fay poser problème parce que ñun dañuy wax ne cadre bi suñu propre moyen lañuy ñuy ak nimbalu coordinateur bi suñu propre moyen lañuy ñuy ak nimbalu coordinateur bi donc soxla nañu ndimbal soxla nañu ndimbal ci cadre parce que euh, dañuy wax ne 57 groupement bi caaxaan groupement bu nekk mu ngi bot ay plus de 100 femmes loolu du caaxaan nga bëgg a satisfaire ñëpp. financé leen ñu mën a am koom-koom ñu nga financé leen ñu mën a def seen formation loolu du affaire caaxaan ah na am nag coordinateur moom macha allah jàmbaar la lool parce que lu ñu indi envelop bu ñu indi teg ko ci taabal bi suñu ne temps la ñu soxla moo koy complété ci ndimbalu yàlla moom dina génn li mu am complété ko ba ñu def financement yi ñu ngi koy def petit à petit parce que comme que tey yéeg nañ euh, ba def financé 14 groupement ñu ngi ñaan beneen financement bi di ñëw ñu financé pourquoi pas vingt groupement alors euh, tey ci wàllu woowu rek euh, ginnaaw bi nga xam ne créé nañu cadre bi doon woo doomu Thiès yëpp. Mhm. di ay borom xam-xam. pour mhm. ñu mën a sóobu ci liggéey bi. Mhm. pour euh, mun a suqali Thiès. également Anna Ndiaye bokk na kenn ci mais également wuyu si ci appel bi. ngeen ànd diggante bi ngeen ànd yow ban jàngat la ciy def. boo xamante ne bi vraiment man nee naa sama. Euh, un mois bii ma ànd ak cadre bi ànd ak formatrice Anna Ndiaye ànd ak groupement yi mu doon formé gis naa ci soulagement bu nga xamante ne bii dama ne dans ma vie mosuma gis loolu. parce que euh, ñun suñu objectif ñun cadre bi suqali jigéen ñi la woon bu ñu yàlla jàppale ci un mois ñu mën a suqali presque quatorze euh, groupement yoo xam ne couvrir na presque cent cent femmes kooku dama naan vraiment am nañ total satisfaction. waaw alors tey ban appel ngay lancé sa morom jigéen ñi pour euh, ñu war a adhéré ci li nga xam ne rek mooy réseau yi ndax tey gis nañu jigéen ak tamit waaj bi nga xam ne ñu ngi koy wàcc 8 euh, mars. Hmm. waaw maa ngi ñaax sama mbokk jigéen yépp ñu ñëw adhéré ci réseau yi ndax ñu mën a am non seulement ñu mën a am formation euh, ñu mën a am tamit financement mën a amal loo xamante ni seen bopp ñoo ko amal seen bopp liggéeyal ko seen bopp. Euh, du fekk ci seen bopp ci seen biir kër yi 8 mars bi aussi ñong koy ñong koy préparer parce que euh, foog naa 58 groupement yépp dinañ daje fii le 8 incha allah si buntu bureau réseau bi dinañ déguisé wu dinañ fêter sunu 8 mars dem dem place de euh, place. de France place de France bu ñu jógee foofu dinañ dellu si waat fii bu soobee yàlla ñu yend fi ak 57 groupement yëpp merci.